أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوحد لي في رمضان نجزا أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوحد لي في رمضان نجزا أجر لسي ما هنده لا wasallali wa maxtaraaw nafadu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ngeen gisee jataay bi xam ne ndigal bàyyikoo na ci xalifa général di kulu murit Cheikh ñëw ci sëriñ Abbas Mbacke mi xalifa maam Thierno Birahim ñëw ci alhaaji maam Thierno Mbacke xalifa sëriñ Cheikh Awa Balla ci kilifteefu sëriñ Modou Maxtaar Mbacke alhaaji sëriñ Gana Mesere Maxtaar mooy yëglee ka fàttali bisub ñaan bisub sant bisub delluwaat njukkal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba alxames fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2020 ñu di ko yëgal mboolem njabootu seexul xadim gi yëpp di ko yëgal mboolem seexi Serigne Touba yëpp waaye nag di ko yëgal Serigne Abdou Samane Mbakke moom Serigne Soyibu ak Serigne Bassirou Mbakke moom Serigne Abdou Khoudous ak Serigne Bassirou Mbakke moom Cheikh moom moom Serigne Abdou Khadir Serigne Bassirou Mbakke moom Serigne Abdou sëriñ Mamoun Mbakke moom tubaa Touba Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Mahmoudan moom sëñ Modou Awa Balla sëriñ Ahmadou Bariou Mbakke mu Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Cheikh Anta Mbakke bu Daaru Salaam sëriñ Modou Lo Ngaabu ak sëriñ Cheikh Abdou moom soxna Bali waaye di ko yëgal sous-préfet Mansour Diallo ak sëñ Ibrahima Sall di ko yëgal Aliou Thioune waaye di ko yëgal Alhaji Mbakke yu fay ak mbooleem njabootu sëriñ Touba gi yëpp bis mi nag xam ngeen ne mu jot Alhaji sëriñ Gana Messere Maxtaar da koy tudde kenn ci magi Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba yi ak njaboot sëriñ tubaa gi ren mu tudde ko Serigne Baara a Mbacké moom Serigne Mamor Diarra ak sëriñ Abdoul Karim Touré ak sëriñ Cheikh Mbacké moom Serigne Mbacké fa jama waaye xam ngeen ne nag danañ yëkkati kàddu gi. di wax nag ci turu Serigne Cheikh mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Mbacké Fadiama sëriñ Cheikh nag mi ngi sant Serigne Gana bu baax ci bis bii muy woote di ci sant Serigne Touba. di ko ci delloo njukkal te muy lu war ku nekk taganaaw bu ma ko tuddee sëriñ Baara Xureja moom borom saam ak sëriñ Abdul Karim ture bokk ci mag ñi mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi defar dara jaale ko nag sëriñ Seex sëriñ Seex mi ngi ko ci sant bu baax a baax ci cër bu rëy boobu euh, di woo nag képp koo xam ne njabootuk Serigne Mbacke Fadima ci nga bokk te mu jabooti leen di woo képp koo xam ne taalibe nga bu yaakaar Serigne Mbacke Fadima wala ngay ab soppeem walla ngay xaritam di ñaan sunu borom yóbbu ñu ci ak jàmm dëppali ñu ci ak ngërëmul sëriñ Touba def nañ ci tawféex ba ñu def ko ci bismillahi rahmaani rahim tàmbale ko ci jeexal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin demee waaye ku gis jataay bi nii mu demee ci sun kilifa yi ci sun ginnaaw sëñ Bas sëñ Baara ci taxawaay bi ñuy taxaw ci jamono yu ne nga xam ne bis bu màgg bu tedd ñëwatina na muy bisub Serigne Gana Serigne Gana nag dafa wax ne mi ngi woo jullit yëpp rawatina taalibe yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne ñoom la séqal sëriñ bi teg ko ci ne nga de ko diglu di ko seetaan di ko woo ci ay béréb yu fasanti ko muy dagg ay itam di ñëw di ànd ak yow liggéeyam sëñ Tuubaa bi <clears throat> nee mu ngi woo ñëpp bayul kenn bàyyut fenn nee na rawatina ñi nga xam ne ñoom la seqal Touba rawatina ñi nga xam ne ñoom la seqal saam gi ni ko sëñ Baara waxee woon kon Serigne Ngane nee na mu ngi soññ ñëpp ci bis bi nga xamante ne bii ci lay sant Serigne Touba ci lii nga xamante ne moom la ko Serigne Touba def dugal ko ci boppam di ko liggéeyloo ca toolam bu mag bi mu fax xelu ba am pas-pasab def ci noo xamante ne bii kenn defu ci lu toll noona muy sàkku it kilifa yi nga xam ne ñoom la bokkal dëkk bi ak kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci bitim dëkk bi te di ko bàyyi xel di ko ñaanal di ko diglu di ko teg ci aw yoon nee na mi ngi leen di fàttali bis bi di leen di soñu seen ak <clears throat> nee na bàyyut kenn bàyyut kenn kenn nag daj na fépp waaye. ab soppe nga nekk ci biir réew mi ak bitim réew di ci woo waa Espagne waa Brésil waa Italie waa Mauritanie waa Côte d'Ivoire waa Gambie mbooleem fu ab soppe mën a nekk. ñi nga lay woo ci cant gi nga xam ni moom la sëñ Gana Messere Mokhtar di sant Serigne tubaa ak di ko delloo njukkal di ko ànd ak soppe yi nga xam ne ñoo ko sopp ci ànd ak moom ci liggéeyub sëriñ tubaa bi. leen di indil nuyoo Serigne Abou xalifa si Abdoul mu yabal ñu ñu ànd ak lenn ci njaboot gi ngir ñu teewe woote bii di sant bu baax sëriñ Gana Messere Mokhtar ci liggéey bu rëy bii nga xamante ni mi ngi koy defal Serigne Touba te tànn mag ñii mu tànn tudde leen ko. ni ko kilifa gii njëkk a waxe waxe rek kon du jar loolu ñu cay dellusiwaat nga xam ne sëñ boo nee na mi ngi koy sant bu baax tey rafetlu bu baax a baax a baax cër bii nga xam ne cëral neen ko am ceeg mbég mbég mu rëy rëy rëy rëy rëy nee na bu sëñ Abdou Karim gi tamit ñëpp bëgg nañ ci muy bokki sëñ bu Karim yi ak taalibe sëñ Abdou Karim ñoom ñëpp bég nañ te rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax di wax ne nag moom dafa nekk ci tool boo xam ne toolu sëriñ Touba la di ci mbay mbayin mu rafet rafet rafet moom sëñ Gana Messere Maxtaar di ci bay mbayin mu rafet rafet rafet rafet mbay moomee nag mu di ca gestuwaale mag ña mag ñi nga xamante ni ñoo toppoon Serigne Touba te nanguloon ko ba nga xamante ni seeni guddeeg seeni bëccëg lépp dañ koo jébbaloon Serigne Touba mu wàññeeku nag ngir xamal adduna mag ñooñee àndoon ak Serigne Touba ngir bëgg ñi leen xamuteen xam leen ñi leen fàtte woon fàttaliku leen liggéey boobu yi ci la nekk guddeeg bëccëg loolu rek ko ñor conseil boo nee na mi ngi koy ñaanal bu baax a baax mu daje cee ngërëmal suñ borom ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal yàlla ci toolub Serigne Touba nee na sëñ Gana Messere Maxtaar ak soppeem yeeg ko yéene lii lépp yàlla leen yàlla defal ñu am ca ngërëmal sëriñ Touba nee na nag. bis bi nag programme bi nam daan demee rek noonu lay demee ren nag am na ak soppiku gu ndaw goo xam ne dana ci am mooy li wutale ak nañ ko daan defee mu jëm ci wàllu guddi gi fasu nañ yéene bu nu xëyee defe ko nin ko daan defee jàng alxuraanul karim bu yendoo ko ak di durus xasida ci mbooleem daaray alxuraan yi ak mbooleem kuréel yi nga xam ne ñooy kuréel yi soppee Sëriñ Ganna Messere Maxtaar yi bëccëg gi itam fas yéene. yendoo jàng xasida ànd koog mboolem jàngkat yëpp yi yëkkati yëpp fas nañ ko yéene ànd ak ñoom ak mboolem ñi nga xam ne ay sikkarkat yi yëkkati turu yàlla lañ bu ñu demee ba tusbaar jot ñu def bernde yi incha allah suñ ko fekkee jàmm ba tàkkusaan it nañ ko daan defee fas nañ yéene bu sëriñ bi ñëwee itam ñu geer tertoo ko nañ ko daan tertoo gatandoo ko nañ ko daan gatandoo suñ demee ba nga xam ni julli nañ timis ba noppi nag ci leen fas yéenee def nag cérémonie bi nga xam ne moom lañ daan def ren jii nag cérémonie bi lañ bëgg incha allah suñ ko defee ba noppi doog a wëyal bernde yi suñ berndee ba noppi nag ñu doog a mën a yeewiwaat gan ñi ndax gis ne barab yi fasantikoo na te it mbooloo mi fii ñëw bari nañ lool ren jii loolu moom mooy am ci programme bi noo ngi woo ñëpp fépp fu fi waay mën a ne ci réew mi ak bitim réew góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp noo ngi leen di woo di ñaan suñu borom yàlla nañu ci yàlla yóbbu ci jàmm ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim mu jeex ci alhamdulilahi rabil alamin mooy bisu sëriñ Gàndama Sëriñ Muxtaar nga xam ne da ciy sant sëriñ Touba ma di ci toog fi nag di ci woo ay bokkam ñi bokkal ci ndey ñi bokkal ci baay ma di ci woo waaye yeew gépp góor jigéen mag ndaw di ci woo itam ñi nga xam ne dañoo nekk Touba gi nga xam te ne dañoo bokk moom ndey ak baay ma di leen woo ci bis bi nga xam ne sëriñ amuñu lu bis bii nga xam ne sëriñ Tuubaa moo nu ko séddee te bi ko séddee itam dañu koo defal ci ki nga xam ne doom la ci nun lépp la ci nun ma di leen ci woo di ci woo Assane Diop mi nga xam te ne moo nekk sama xalifa fii ci yi Touba di ci woo waa yeew gépp di ci woo njabootu Biram Mbay ci yeew di ci woo njabootu Abdoulahi Ndiaye di ci woo ab njabootu Xonn Diop ci di ci woo njabootu Abdou Kébé ci yeew di ci woo waa yeew gépp góor jigéen mag ak ndaw ma ci woo ba bokki Touba yëpp wasalaamaaleykum Serigne Gana léppam sëñ tubaala ndax ay nijaayam a ngi fii ay magam a ngi fii ay doomi ndeyam a ngi fii ñëpp mën nañ koo sukkal mën nañ koo raamal mën nañ koo doxal ay yónneen ngir sëriñ tubaa kon li man li ma ko wax ne coobaree Serigne bi la loolu moom Serigne bi la soob mu wax loo ko li muy wax am njàng mayu ko ko waaye nag ak bëgg a ngi ci yittee ngi ci sëñ bi nag boo doxee jëm ci moom mu gàttandul la boppam nag kon donte da doon xam-xam lu sëñ bi ak jéem a le sëñ bi ah sëñ bi nag moom roof na ko roof na ko ca kattan goo xam ne xamul sax fu mu jaar kenn xamul fu mu jaar ba def ko lu coobareem rek kon sëriñ Cheikh nee na mi ngi ciy woo ñëpp saam ak li ko wër Mbàkke fépp foo xam ne njabootu Maam Mor Jaara ña nga fa bëgg na bis bi ñor leen rawatina waa saam wasalaam mu ni eh, béggati na lool ndax eh, ndox ak xorom mbaa xorom ak ndox ma mu dëkkal xañ ne jeexit ba du ci bareeti waaye dafa mel ni moom daa dëkk ak borom saam saa su ne muy xoole borom saam jëmmam jooji mu gën a fonk borom sam ba tey jii nii mu jëlaat bis boobu itam daal di koy jox borom sam sëriñ Mamor Jaara magi mag kooku itam mm, mm, kenn du moom waaye mu jaare ko ci way juram eh, eh, doomam bi nga xamee ni moom eh, bokk na ci ñi sëñ Tuubaa mujj jox aw tur muy Mouhamadou Lamine Mbakke waaye di rasulullahi moom Serigne Mame Mor ñëw gën koo xam Serigne Bara Khouréja moom mi nga xamee ni tey ak njabootam ñoo teew ah, eh, ci dëkkam bii ci pakkam bu set bii ci bàkkam bu sell bii ma man cee tudd Serigne Bara Mbacké mii toog ak man muy koo xamee ni nim taxawoo ak nim jàppe ak fi mu féete Serigne Gana ngir jëmmi Sëñ Tuubaa rek tax nee na loolu itam fës na lool ba am na ci mbégte lool dëkk gi nga xamee ni dëkk na kook moom ba noppi lépp gën a rafet te xam nga nit moom boo dëkkee moom xaj na bu fekkoon am na ay jafe-jafe mbaa ay manqué manqué rek tey jii kon du ko mën a tudde kooku waaye dëkk bi saa su nekk mi ngi koy gën a dox saa su ne mi ngi koy gën a rafetal qualité yooyu nee na daal sëriñ Ganna sëriñ Modou Mokhtar nee na sa xel na gën a dal bu baax a baax nee na daal jëmmi sëriñ Tuubaa mi ngay liggéeyal yaa ngi liggéeyal koo xamee ni ko mat a liggéeyal la incha allah sa lépp dana jag fii waaye sa lépp dana jag fee nee na daal demal mi ngi lay bàyyeeg ki nga xamee ni mooy Cheikhul Khadim waaye mi ngi koy jaar ci Serigne Cheikh Awa Balla di ko jaar tam ci maam Thierno di ko jaar ci mboolem ci mboolem jabu Serigne Touba gépp li mu waxoon itam mat na lépp loo xam ne dëng na ci ñun ñii ci suñuy wax la waaye waxoon na lu rafet waxoon na lu mat waxoon na lu yaatu waaye ëmbaale ak cant yitam ak mboolem waa kër sëñ Tuubaa yii ma ko tuddee nga xamee ni yëpp benn lañ ndax ñun laa nu farriqu bayna ahadim min rusulihi waa kër sëñ Tuubaa bépp benn lañ kuñ ci jàpp rek sëñ Tuubaa rek a tax kon nag ñoo ngi sant di jéggulu ci kàddu yi lépp loo loo xamee ni ab jamal la ci ngir jëmi Cheikhul Xadim waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu woote baa ngi noonu alxames fukki fan ak ñett ci weeru février ki Touba Sam Jalu Xeer bésub sant delloo njukkal sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba alhaaji Gana Messere Maxtaar daal nee na bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn suñu demee nag ba le 10 février daanu ci rendre hommage Serigne Cheikh mbakke moom sëñ Abdoulahi borom dër bi Serigne Cheikh Mbacké Daaru Rahman mi nga xam ne kenn la woon ci gànna Gana Messere Maxtaar le 10 février danañ ko rendre hommage ci jàng xasida ak jàng alquranu karim fii ci kër alhaaji Serigne Gana Messere Maxtaar kon baa ngi noonu woote baa ngi noonu bàyyiwun kenn bàyyiwun fenn bàyyiwul ñenn le 13 février Touba Saamu Serigne Bara Khourédia bàyyiwul kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu